visité poste xaar yàlla réceptionné ko jël caabi teg ko ci ay loxo yu wër yàlla dogal euh, ci euh, poste boobu ñu daal di fa visité travaux yi ngeen xam ne ni mooy extension poste bi travaux yooyu may na tey poste boobu mu mën a am pédiatrie mu mën a am maternité mu mën a am laboratoire te loolu yëpp ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ñu ñëw tey fii ci stade communal lu Grand Yoff am mbégte lool parce que lii suñu mag suñu kilifa suñu leader le maire honoraire Sall mu ko commencé woon yàlla nag euh, dogal mu daal di am euh, galgal ba mujjeewul euh, déroulé vision am tey yàlla may ñu ñun ñu mën a jeexal liggéey bu Khalifa Sall tàmbali woon fii ci Grand Yoff ñu ci am mbégte te sant ci yàlla bu baax a baax tribune ngeen gis ci ginnaaw Khalifa Sall moo ko tabaxoon ñun ñu ñëw mënta di tribune bi indiwaat beneen tribune mu mën a def benn capacité totale de quasiment 4000 personnes te ci ay fan ñu néew incha allah dañu fas yéene waat installé waat beneen tribune pour mën yokk capacité wu stade te fii déwén incha allah dañu fas yéene ànd avec le maire Pape Madiop Diop ak euh, mairie wu Grand Yoff tabax fii benn piscine municipale buy ànd ak benn centre d'hébergement pour que askanu Grand Yoff particulièrement jeunesse su Grand Yoff mën a am benn complexe sportif benn complexe de loisir parce que may birilaat wax ji wax nañ ko ci campagne bi nee nañu ñun doomu aadama la fonk doomu aadama la ñuy sargal doomu adama la ñuy yëkkati donc loolu moo nekk suñu priorité ci mandat bi waxoon naa ci campagne de Dakar dafa fas yéene at bu nekk ànd ak maire yu Grand Yoff investir à hauteur de ñetti milliards parce que maire bu dëppul kees maire bu jaayul suuf maire bu dëkk ci goxam maire buy nekk ci wetu askanam kooku ku ko yàlla may da ngay sant yàlla